asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar Net kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Ouzin ngeen di àndal saa su ci seen émission bi nga xamante ni mu ngi tudd Guissé ak la rencontre avec gisee ak nag saa su ne dañuy waxtaane actualité di ci indi ñi nga xamante ni voilà ñoom ñooy euh, ñoo nekk si au cœur de l' actualité tey ñu invité ki nga xamante ni euh, moom mooy xalifa euh, Khalifa rappeur Khalifa activiste tey ñu war a waxtaanee actualité bi ak yeneen mbir ñi nga xamante ni moom moo xew ci ci réew mi ay lu ko soxal d'ailleurs dañ ci dinañ ci wax mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nduroog mbokk internet yu Dakarnet ñu ñëw ci yaatal Khalifa maa ngi yasa aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin kulama waqadu naaran lil arwi atfa allahu yasaay alors asalaamualeykum wa rahmatullah di la nuyu Ousin di la siyaar di nuyu waa Dakar Net mm-hmm. alors di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan bisimilah rahmaani rahim. Hmm. alors Khalifa dañ lay dañ lay gis si internet bi ah donc yàngul dara ngay annoncé comme quoi que dafa am ay nit yu la doon topp yor oto pour bëggoon dal si kaw dal sa kaw wala sax bëggoon la euh, juumloo parce que nga def euh, nga dal seen kaw ñoom ngeen indi ay jàppante alors loolu mën nga ñëwaatal juste ci fay bi naka la demee. waaw alors loolu toog naa bés bi affaire bi amee si fay bi. Hmm. ñu alerté ma. parce que ñun mooy lu ñuy wax rek xëy na gars yi sax xamuñu ko dee leen ñuy gis nii rek ñu nekk ay jaam yu xeebu yu tekkiwul dara Baye Fall ñun communauté moo nekk suñu ginnaaw di ñu ñaanal di ñu dooleel di ñu jàppale ay dégg tey si tey man du ma président du ma ministre mais alhamdulilah macha allah li ñu naan ko ëppul mboq mënoo ko jëw man j'ai des informateurs j'ai des informations te yu leer nañ te wóor lay nekk est ay dégg mhm. waaw am samay renseignement am tamit mun naa ne sax ay maanaam agent secret si ay dégg yoo xamante ni nii saawaay loo leen nar seen coup yi ngeen di waajal ak ak yenn doomu réew mi ñi nga xamante ni nii maanaam xama ñu ngi maanaam def si réew mi pour yàq réew mi ak yeneen ak yeneen presque ñun ñëpp xam nañ leen est-ce que yaa ñu si bëri saawaay ñoo leen dul laal rek bàyyi leen si biir yaa ngi mais Dakaaru Njaay jël Jóob saa waay xoola dafa xatte ndaw ñëpp xamante nañ yaa ngi dégg léegi man jot naa information ñu ne ma moom moytu côté Russie Medina bi mm-hmm. que ni maanaam am na ñu fa nekk maanaam di ma xaar te ñooñ ñoonu dañ doon mu boo dig parce que ñoom dañ buggoon ñëw def benn coup boo xamante ni nii comme ça coow am wala benn ah. genre affaire yooyu noonu xama ñu def ñu def jaan peut-être affrontement wala ñu jote wala dara après ñoom buñ affaire yi àggee dig xama ñu dem pour coller ma ay motif ñoom loolu nañ toggoon est-ce dégg te tey si tey d'après renseignement yu mujj yi dem nañ sax ba xam si ñenn yi ñoo xamante nii gaamal la sumuwaay ay dunguru baay ah, ay dunguru Bamba Fall nañ bokk si njabootam. est-ce que yaa ngi dégg ñu tekkiwul dara. da nga bëgg wax ni Bamba Fall moo nekk si ginnaaw loolu. non pa Bamba Fall moom instant bi sax mi ngi France. Mhm. moom mun na bañ a maanaam. ay nitam direct noonu la demee njabootam daal ci gàttal. Mhm. est-ce que mhm. parce que xëy na gis nañ benn vidéo montage. affaire foo yooyu noonu xam nga ñu bëgg fa jaaree foog ni kii Baye Fall leen nax seen bopp man xaw ma arme te aw ma ah, arme. alors dagg dagguma la. waaw su ma la bëggee su ma bëggee ku ma comprendre li nga bëgg wax mooy. comme maanaam yow ñoom lañoo gis vidéo boobu. bëgg a jaare ci vidéo boobu. ñëw jëm la yëngal. pour nga ci ñoom pour affaire bi mujjee teere justice wala loolu nga bëgg a wax. en fait mun nañ munoon ñoom xalaatee ko noonu parce que ay tapet nañ ñoo ñemewuñu arme est ce ay dégg. Hmm. waaw xëy na dañ bëggoon ñëw def li ñuy def kenn si ñoom tiire kenn wala genre business yooyu. Hmm. après pour ñu ñëw ñoom ñu collé mo motif. Hmm. est ce ay sip. ne booy moo yor arme wala affaire yooyu mais na ngi nax seen bopp. saa waay man aw ma arme te xaw ma arme. waaw montage montage la bu jeexee jeex na. mais léegi tey si mooy li ma la wax. may la xëy na ñoom. maanaam jàppal ñu benn haine yéen ñu kaso yéen ñu dee wala dara te ñun demeewu fa noonu ñun mën naa ñu am fa nañ juddoo fa nañ bokk suñu papa yeeg suñu yaay suñu maam yi ñëpp fa nañ juddoo mm-hmm. est-ce que yaa dégg mm-hmm. ñun tey si tey dañoo ñëw taxaw temm pour maanaam injustice bi am Médina bi Bamba Fall di dawal teg fa mafia bu amul fenn boo xam ni li am Medina Medina kese la am loolu na ñu bëgg saa waaye mu jugee Medina hmm. doomu Medina yi ñëw ñu àndandoo ñun ñëpp mu xam ne Medina bi yëpp A ba Z ñëpp da nga siy gis seen bopp waaye budget Medina bu ñu ne huit cent neuf cent millions la par année te budget boobu mën a nekk quatre cinq par année est-ce que dégg quatre cinq milliards par année ñun doomu Medina yi saa waay ñëpp boo ñu dajalee pas maire ñëpp habitants yëpp en général bu ñu bëree ba bëri quatre-vingt-dix mille personnes nañ mais jëla quatre-vingt-dix mille personnes saa waay jëla cinq milliards nga diviser ko par quatre-vingt-dix mille personnes nga xool askanu maintenant ñun ñëpp laa lay wax ni A Z ku si nekk saa waay boo amul liggéey war nga am liggéey par la force te doom maintenant yëpp dañu war a gis seen bopp maanaam si commune de la Médina ñun loolu la ñuy xeex te mun na nekk est-ce que ay dégg à travers ay programme saa waay bien défini yu leer nañ yoo xam ne askanu maintenant saa waay xoola da siy gis maanaam boppam léegi ñun loolu lañ ñëw taxaw pour xeex ñoom ñun li ñuy xeex sax pour ñoom seen intérêt waa kër la ak seen intérêt njaboot mais kon saa waay ñoom bu ñu dem gaan ñu jox leen benn cinquante mille wala ay wéccit wala xaalis jaral leen ni jël ñu faagaagal da bëgg a wax histoire nga bëgg a wax histoire de nervi yi moom moo ñëwaat daal daanaka affaire de nervi noonu la demee parce que ñooñu ñooñu noonu ma songoon Range Rover nañ yor benn Range Rover bu ñuul nañ yor mhm. ñëw taxaw sama kanam benn clochard bu tekkiwul dara ubbi portière arrière bi wàcc mais kooku moom xàmmee ko te fu ma ko gisatee ba tax bët moom saa waay mënat sama loxo loxoom ba keroog quatrième wala dig wala central wala feneen ak feneen barki alxuraan. leen pare woo leen sax xaajoo leen bay pare. da ngeen di gis nit nii léegi muy dem ngeen foog ni léegi tey si tey kooku bi mu wàccee. man sax boobu maa yor sama kaasu café di dawalee benn loxo li dem sama yoon di raamal sama moto nank benn waa jóge fi ak moto vitesse ñëw mbëkk ma waaye daf ma mbëkk rek ma xam ni lii ñii mooy loolu rek ma accéléré. léegi bu ma accéléré noonu tey si tey benn 3 mètres ma taxaw tourné bi ma tourné ndax moom ki ma mbëkk noonu mu ngi taxaw di wax ak borom oto bi voilà léegi fekk booyu moom dugaat na si portière ba tëj buntu bi ba Range Rover bi noonu di marche laal marche arrière pour ñëw accéléré topp ma. yaa ngi dégg. man si laa def nii jàdd seey dem sama yoon parce que boobu maa yor ay dossier ay dossier yoo xamante ni. ay scandale lu Bamba Fall la ay mafia Bamba yoo xamante ni saa waay day prouver maanaam. ay sàccam biir Medina yaa ngi dégg te dossiers yooyu noonu yëpp comme dañ doon jaay con naan dañuy jaay affaire foto naa dossiers yooyu noonu yëpp dugal naa ko saa waay internet mi ngi sama page Facebook ku képp ku ko bëgg a gis yaa ngi dégg koo yàgg taxaw nañ ko yow sàcc nga wala boog te auparavant doomu Medina ku wax si moom mu jaay la doole porter la plainte ñun ñu taxaw ne ko yow sàcc nga te Bamba Fall dañ koy continuer di ko wax. parce que yaa ko def sàcc nga est-ce maanaam wax loo xam ne. diffamation mooy wax lu amul. bu ñu demee yoon incha allah ñu prouver ni sàcc la. si yaa ngi dégg voilà. alalu Medina saawaay. Mm. du alalam moom du alalu baayam doonu xoo. suñu alal la ñun ñëpp. ñun li ñuy xeex pour askanu Medina yëpp la ñu xam ko ñàkk ko xam. yaa ngi dégg mm. léegi tey si tey combat bi ñu nekk nekk nañ si lu yàgg. Mm. booy Sénégal dëkku wax la booy gars yi na ñoo kii booy Cheikh Bala xaw ma Messi ay te yàlla xam na ni Cheikh Ba musuma ko gis dëgg kase saawaay comme nii laa si am. ba pare di xam nax maanaam ay wàll yu bëri si moom parce que mooy li ma la wax ñun information fu ne lay jugee yaa ngi dégg Cheikh Ba boobu noonu dama taxaw publiquement yàgg taxaw publiquement maintenant di wax gars yi képp ku xam toq mafiaawam na ma ko yeggalee. ñu kalaate ko ndax dañuy xeex injustice te si ñëpp nañ koy xeex mais ba nii may wax ak yow gisuma toq maanaam mafiaawam est-ce ay dégg te askanu Médina lay ñëw di jàppale nekk doomu Médina di taxawu Médina d'accord léegi li ma la bëggoon a laaj mooy Cheikh Ba bi nga wax ak Seydou Gueye ñun ñaa ñëpp Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk te yow parfois dañ lay gis non non non Cheikh Ba bokkul Benno Bokk Yaakaar Seydou Gueye APR la bokk Seydou Gueye APR la bokk waaw kee bokk Benno Bokk Yaakaar Cheikh Benno Bokk Yaakaar la bokk. d'accord léegi d'accord mais ñaar ñëpp. ñoo tane Bamba Fall parce que Bamba du doom Medina Bambey la mm-hmm. ñoom hospitalité rek ñëw daloo ko mu teg ay mafia mu jaral ko lu ne. sacrifice ak xam-xam bu ñu la lu ne mu dem ba nekk maire. Mm-hmm. après yàq suñu Medina bëggoon laaj xalifa mooy. ñaar ñooñu nga wax noonu benn euh, nee nga kenn ki euh, APR la bokk benn bokk mm-hmm. yaakaar keneen ki bokk muy Cheikh. alors xeex boobu noonu te dañ lay gis da ngay faral di xeex système bi maanaam nguur Macky Sall ni muy doxee ak yooyu ba ñenn sax ñu jàpp da ngay jàppal tànk Ousmane Sonko est-ce que gisoon ni coalition bi nga xamante ni bu bees bi mhm. Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall est-ce gisoon ni euh, coalition boobu ñu jël fa nit koo mhm. xamante Medina la dëkk euh, imposé ko li nga xamante ni moom mooy maire bi que que ñuy jël koo xamante ni si si Macky Sall la bokk ba léegi du am contradiction par rapport si tey non non amul contradiction mhm. parce xëy na ñi xamul mun nañ leen leeralal parce que état nu muy doxee comme boo nee présidentiel c' est diamétralement opposé et différent que local local maanaam pour commune yi la mm-hmm. commune bu su nekk yaakaar naa mm-hmm. jur na ay intellectuel ay borom xam-xam ak ay doom yoo xamante ne nii maanaam am nañ amour pour seen commune mm-hmm. ñoo ñu ne ñuy soxla ñu yërëm seen commune bañ a teg bët alalu commune bi ñëw doomu commune bi maanaam dajaloo booloo am ay programme ak ay projet yu leer pour maanaam seen avenir ak yeneen ak yeneen ñu àndandoo doon benn say ñoo proposer ki nga xamante ne nii saa waay xëy na askan wi wala lu ëpp si askan wi moom nañ àndal ñu ñëw won ko suñuy programme yu leer nañu yaa ngi dégg ne ko lii ak lii nañu bëgg pour nga jàppale ñu àndandoo liggéey suñu commune tey si tey foofu foofu noonu ki ñuy tànn na nekk bennoox APR fépp fu mu munti doon maanaam na nekk doomu commune bi mm-hmm. mu leer nañu kii du ñu war te bëgg na commune bi mm-hmm. ñu àndandoo mu nekk combat boo xamante ñu àndandoo liggéey nga xamante yi nii mm-hmm. liggéey bi su demee ba si digg bi bu amee toq injustice da ngeen di génn dénoncer comprendre na moo tax coalition wu ah. Sonko Karim Wade Khalifa Sall loolu c'est une très bonne idée pour maanaam la démocratie sax est-ce ay dégg parce que tey si tey sénégalais yi dofuñu te bépp commune si bépp gox bu fasantikoo fii si biir ndakaaru njaay ak sénégal en général ñoom xam nañ seen i doomu doomu gox du dëgg seen doomu gox nañuy tànn mm. xool ñu leen di jàppale daa ngi dégg loolu kese la quoi alors comprendre naa bu baax a baax ni nga bëgg a expliquer ah. comme quoi que ni affaire de local la te affaire de mm. local moom euh, euh, ki dëkk ci gox bi euh, am fa mm. njëriñ kooku la ñu war a fal alors yéen a ngi ci seen émission gisee ak ba léegi ah, comme ni ngeen ko gisee ñuy dalal ki nga xamante ni moom mooy xalifa ñebe euh, xalifa nay buut buuti waaw mais malfaiteurs yooyu noonu bëgg naa wax si ñoom waaw d'accord en fait parce que ay malfaiteurs yu mhm. gis euh, démb euh, même pas même pas trois jours en fait ki nga xamante ne mooy Iran mhm. ñu gis benn déclaration ci biir wax alors sax bi muy wax ko question ah moom moo jékki-jékki rek waxee waxee waxee ko noonu boppam ni moom voilà jong nañ dafa jong ñaari yoon déjà wax boobu noonu ak kilifa bi mu doon est-ce que jaroon na ko surtout loo xamante ni laaj ñu la ko noo gisee dèjà wax boobu. waaye di lekk ak ñàkk fayda lekk booy léegi saa booy temps bi nii de de ko gis nii lekk gars yu bëri ñu leen di coow naan diw diw diw ñu am. ay ñu am ñu dem ba am tur ma ma ñëw. Hmm. dama ni la ñëpp naax muy oustaz sax ñeneen ak ñeneen ñu bëri ñu ngi taxaw di mubboo diine bi hmm. te gëmuñu dara ay complexe yu bon nañ. saawaa ji ba pare ay waaya dinañ booy Iran Daw saawaay Iran Daw Iran Daw mais mooy kan booy saawaay Iran Daw kan fi gën a doon kilifa fii kilifa du âge Iran Daw saawaay bu dee diine gi saawaay lay waxal wala diine gi la teewal na yam maanaam si qaala Allahu qaala rasul wala boog barki démoo njaay daamal la sum waay yi ngi gis askanu Tiwaawan ñu bëri génn di ko dal parce que dafa bëri wax seytaane bëgg ay affaire da jaxase ay sos. amee barki Demba Ndiaye tamit fii la ñëw taxaw di bënn bëti naan day jooy naan day def ay affaire ah si kaawu xaw ma ñooy ñu porter plainte suñu oustaz porter plainte koo xam ne il représente la religion islamique wala boog kii gaan man kii daal war nañ ko kii kii bàyyi saa waay bu dee bu dee yàlla yéen tamit ku leen neex ngeen di taalal micro. affaire yi saa boo leen ko taalee micro. Mhm. ah nay wax askan bi yàlla nee na yonent bi nee na na yem foofu mais mais fàlliku bërki démoo njaay bi mu nekk télé saawaay nga xam ne buy jàngale sax. Hmm. ay sangu set yooyu noonu saawaay day dugg si douche yi. yooyu yëpp askan bi saawaay rafetlu ko ak yeneen ak yeneen foofu nañ koy xaar mais na bàyyi wax ju bëri ji quoi. quand même mais mais mais mais en fait moom comme ni ma la ko waxee noonu kenn laaj ko mu wax. waaye moom tamit am na droit wax ci réew mi ni muy doxee on s'en maanaam. comme yow ni ngay waxee ni nga amee loo loo métti ci réew mi waxee wax on s'en ma ne la. Mm. on s'en fout de sa vi privée. et maanaam de son physique quoi moo xam est-ce que dégg fois saa waay na tee gars la su ma xoolal du gaaw a daanoox yooyu yëpp on s'en fout lu suñu yoon. lii daal boo xool ay waxu seytaane la quoi ay wax yu ñàkk fayda terre à yu tekkul dara. parce que ñii ma la ay wooye dinañ gis nga boo bëggee toog di wax lépp lu ñor nga wax lu ñorul nga wax ah, te yow li ngay wax saa waay yow ah, intérêt diine bi nga la doon bi lay xaar sax yow génn nga intérêt diine bi di dem xëy na say intérêt personnel wala yeneen ak yeneen wala boog bu ñu boo duggee si loolu noonu. waxu dof yi rek si ngay mujj waa ay waxu kasaw kasaw. mais mais mais est boobu tamit xalaatoon yow mii sax mën na la dal parce que ñu bëri ñu ngi naan. xalifa bon li muy def émission dafa bëri. waaw donc seet si nga ñu. kontaan nañ ci bu baax a baax. quand mais gars yi tamit est nekkul yow doo dem ba egg foofu. juum tamit laamiñu askan wi. waaw. du laamiñu askan wi kese de. <laughs> waaw noonu naafeq yi. yaa ngi dégg. parce que naafeq mënul nangu dëgg te donte ni làmmiñu askan wi lépp lu muy wax pour intérêt Sénégal njaay la pour ñoom sax naafeq yi ñoom seeni waa kër seen i famille ak seeni njaboot ñun sax ñu ngi wax seen i intérêt njaboot ak seen i intérêt famille mais duñ ko nangu seen intérêt la ñoom na ñuy xool xam boo waxee loo xam ne arrangé wu leen la ñu waaye kii dafa bëri wax na dem liggéey oh tous saawaay yi ñun si même réew nañ dëkk saawaay nekk ay porteur de voix kenn ëppale wuñ fii d'accord man Jal Diop saa waay sama maam direct la est-ce que dégg ma juddoo Ndakaaru samay sama baay sama ndey samay maam ñëpp fii lañ juddoo Ndakaaru kenn ëppale ma ba pare ma nekk porteur de voix artiste lépp lu ma am lu ma naqari si même réew. Hmm. damay génn dénoncé ko. mu neex leen mu naqadi leen hmm. xoola I don't give a damn about it saa waay. dëgg nañuy dund di ko wax. Hmm, ci yàlla rek a tax. alors euh, ñun dugg si ay wax yu ñàkk fayda de. waaw d'accord Khalifa ay wax yu ñàkk fayda yi nii. d' accord li ma bëgg a laaj pour ñu tëjee ko émission bi mooy inondation yi mi nga xamante ni bon c'est récent ñu ngi koy gis dëkk bi euh, xaalis bu bëree bëri la ay milliards lañ ci def 2014 parce que 2012 sax la Macky Sall yéeg wax ni dindi loolu xam nga fal ministre ñu voté budget bu dul jeex ci xaalis donc voilà inondation bi ni ba mu lañ bëgg nga tëjee si émission bi déjà naka nga koy dundee fi nga dëkk est-ce que am na inondation Médina déjà waaye Médina am na inondation si yenn koñ yi yaa ngi dégg waaw ñun Médina déjà ñun lu ñuy gën ñuy ñëkk nakarlu mooy ONAS bi nga xamante ni dafa ñëw ne day def ay travaux te travaux yi àggul àggul waaw ñu gasal ñu suñu koñ yi booy maintenant bu tawee day salte bu tawee ba ndox bi dem sax laa lay wax ni si lay gën a salte nag suuf si day dajaloo mhm. tali yu bëri poussière oto yi bu ñu rommee saa yi kenn du nooyi ndax poussière maintenant bi dafa salte Bamba Fall tamit gànnaama la Sumbaay li nga xam ne mairie moo damay wax Sénégal ah mais inondation tamit boo xoolee Kër Massar yaa gis images yi moom laa la wax bu dem xoolal lii bàyyi saa waay booy dafa ñaaw booy dañuy dem di xuus di ñëw donc lan ngay wax oh. euh, état bi si si loo xam ne dañ ko war a def pour lii dañ fi carrément quoi en fait moom laa la wax surtout capital bi ñu nekk Dakar gi neexul si xol mm-hmm. yi saa yi dafa naqari xol mm-hmm. te képp kuy gor wala nga nekk nit boo gisee lii sa yaram dina daw asiant ay dégg waaw ñu si banlieue bi Kër Massar comme ni nga koy waxee feneen ak feneen saawaay biir Dakar mu si région yi ay Touba du gis ngeen saawaay ni men état bi tey si tey ñun suñu alal ñun moom lañu yor quoi ñu ngi fàlligu bërgi démoo njaay saawaay ñaata milliards nañ déployé gaan pour affaire inondation yi six cent milliards ah bëgg Demba Ndiaye Macky Sall yuy dem Kër Massar nga xam ni daaw kase bañ naan def nañ ko département ana milliards yooyu noonu yëpp fu mu dugg Macky Sall dara nañ koy lancer message mooy a lan na bàyyi sàcc yi muy protéger ñi nga xam ne nga leen di jox maanaam alalu askan wi ñu jël alal boobu noonu. maanaam seet seetloo ko maanaam si benn clan benn mafia bu ndaw ñu jël alal boobu noonu def ko seen i compte ak seeni i compte jabar ak seeni i doom yaa di toroxal askan wi ba pare mag Sall leen protéger mag Sall yooyu la war a bàyyi na jël dajale sàcc yooyu noonu yëpp est-ce que ay dégg mm-hmm. ñëpp ñu nga xam ni jox nañ leen maanaam pour pour maanaam xaalisu réew mi ñu jox leen ko pour ñu xeex inondation bi mm-hmm. tey si tey ñooñu ñëpp na nga leen jël mag Sall moo la gën a xam nu mu demee moo la gën a xam ñëpp ñi sàcc na leen jël maanaam yóbbu leen si kaso bi parce que ñooñu ay terroriste nañ te ay criminel nañu te tey si tey maa ñëw mm-hmm. dama la Sénégal xaalis boobu noonu yëpp bu génnee ce n'est pas trop tard ndox yooyu noonu nga xamante nii mu ngi si inondation bi ak yooyu waaye canalisation kese la laaj la moo tax nu ñu jël ay système de canalisation yoo xam ni ndox yooyu saawaay day juge di dem maanaam si baykat yi est ay dégg wala maanaam saawaay ñu koy ŋànk daf ko si ay oto yóbbul ko maanaam baykat yi seen i tool ak yeneen ak yeneen ba Sénégal toq sérieux amu fi ba pare ñu jël dëkk bi yëpp gas ko ay travaux yoo xam ni du mus a àgg ana bi wala travaux yoo xam nu mus a àgg booy lépp gaan yow daal nañuy signé def affaire xaalis yi génn ñu jël xaalis bi jël benn wéccur bu ndaw dugal ko si saale après li des yëpp ñu jël ko dugal ko seen i compte xarit ak seeni i ñoom ak seeni i doom ak seeni i compte jabar loolu saa waay xola dafa ñaaw te askanu Sénégal saa waay xola yeewu na si loolu xàmmee na ràññee na ah. te dina jeex incha allah parce que dëgg rek kay mujj donc lan lan ñu ngi lay gërëm ah sa de la fin. askan bi dafa sonn booy saa hmm. waay loolooy sama mot de la fin askan bi dafa hmm. sonn. d'accord yàlla rek a tax ñun waxuñu pour ay caaxaan. waxuñu pour buzz waxuñu pour. I don't give a damn about it quoi. Hmm, askan bi moo sonn booy. ba imaginel booy saa waay ndoxu taataayi booy saa waay sa gàlle. yow si yow nga yeewu sa gàlle. nga toog sax daala yow sa lal gaa ndox bi ñëw saa waay xoola mënatoo sax amatoo sax fooy tëdd mhm. wala boog te gaa ñu ngi gis si net bi vidéo gaa ya nga xam ni seen douche sax laa lay wax nii saa day fees wala boog yéen nekk leen ay nit waay yéen xaa ñii xaa ñii amuñu ay amuñu xel baay wala ay bulldog nañ wala ay génne wala ay bukki wala lan xam naa xam naa xam naa bon en fait bu ñu ko doon wax ah, Euh, fii ba suba tamit du jeex. bugguñu fi émeute bugguñu fi manifestation jàppale nañ dugg suñu réew. mais lii dafa naqari xol quoi. d'accord d'accord askan wi loolu lay budbuti fi mu toll nii. saa waa ji euh, mën naa ni naqar bi dañu koy partager. waay ah. toos man mi la invité sax maanaam ngi koy dund su ma ko dundul ku ma jege mu ngi koy dund. parce que euh, maa ngi dëkk si banlieue bi donc Caaroy jàmm gën zone boobu yëpp jamono bii boo fay dugg dangay ngay xuus da ngay yëkkati say say yëre voilà suñu yaay tamit dañuy xuus bu ñuy dugg bu ñuy génn donc di wax rek état bi nañu gën a góorgóorlu si askan bi metti na trop ça a été un plaisir quand même de vous servir Ouzin doon àndal ci seen émission gise ak tey ma dala ci sama sama activiste bi ah suñu activiste bi donc j'espère que kontaan ngeen ci waxtaan bi waxtaan bi jëlee ngeen ci njëriñ jaajëf